mbokki internet xibaar bu bees ñeel mbirum Juan Branco ñi nga xam ne ñoo di waa sûreté urbaine daal di nañoo teg loxo benn suspect bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xam ne moom la seen Seneweb joxe kooku la ñu placé en garde à vue maanaam téye ko ndim du kenn rek ku dul Aminata Makital mi liggéeyee fële ca Sonatel moom nag la ñu njort ne loxoom daal jugul ci dimbali avocat français bi la di Juan Branco bool d'avocat bu Ousmane Sonko ndax nag. nag ki lee di Juan Branco bi mu paree def déclaration wam dafa dugg rek ci biir benn oto oto boobu mu dugg nag policier yi dañoo rek relever numéro plaque d'immatriculation bi mu tombek moom ci noonee nag la ñu ko jiiñ ne daal moom moo ko transporté Aminata Makital nag ci famille Makital bu Louga ci moom lak la ñuy wax moom nag moo weddi ci kanamu enquêteur yu nekkee ca sûreté urbaine li ñuy wax yépp ci moom moom nee na moom nag di Aminata Macky Sall bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu joxe ba tey kenn xameewu ko sax mbirum politique parti au pouvoir maanaam di nguura gi fi ne ñu ngi woy rekk di amal seeni arrestation ci ndigalu procureur de la waa dikk daa dina ñoo rek teg loxo maire bu Parcelles des Assainies di Aboubacar Jamil Sané bu ñu sukkandikoo ci waa Seneweb Jamil Sané nekk membre fondateur bu parti Pastef dañu ko suspecté naa la moom moo nekk ci ginnaawu yàqu-yàqu yi am ca commune bu Parcelles Assainies keneen itamit ku ñu woolu moo di rek maire bu Patte d'Oie di Maïmouna Dièye ca division des investigations criminelles di waa dikk convocation bi nag mi ngi am ginnaaw a jàpp gi ñu jàpp Ousmane Sonko ak dissolution wu parti bile di PASTEF ginnaaw moom nag Ousmane Diop nekk itam responsable PASTEF bu Mbour daal di nañ koy teg loxo dimanche bi weesu ñi nga xam ne nag ñoo ko teg loxo di policier commissariat urbain bu Saly démb nag jébbal nañ ko procureur de la république ca tribunal bu grande instance bu Mbour ñu ngi koy toppee nag appel à l'insurrection ak association de malfaiteurs avec une entreprise terroriste ak trouble à l'ordre public maanaam daal woote fitna ci réew mi ak lëkkaloo ak ay nit yuy def yenn ñaawte ñaawteef moom daal la ñu koy toppee lu waral nag ñu jàpp ko moo di dal dañu ko rekk suspecté ci ay recrutement jëm rekk ci ay tocc wala sax di yàkkati bi di yàkkati ngir rekk lëmbee Petite Côte bi moom daal la ñu koy toppee ndax nag daal dina ñoo teg loxo ay woy manifester yoo xam ne nag fekk nañu ci ñoom ay cocktail molotov te gendarme brigade bu Saly nag ñoo leen teg loxo